mbokk yi bisimila dal leen ak jàmm seen dernière revue d'actualité de la semaine dinañu waxtaanee football ak jongante bi nga xam ne ni dañ ko daal di jagleel ñi am jafe-jafe dégg Sénégal daal di ciy bokk football ba léegi waaye bi yoon ci jigéen ñi suñuy gaynde yi ñu ngi ci wàccaayu éliminatoire CAN 2022 lamb mën nar a nekk si ñetteeli ponk laata ñu koy tëjee at basketball nes gis ñu daal di leen koy faram bisimila CAN 2021 bi ñu amalee ca Nairobi te ñu jagleel ko ñu am jafe-jafe dégg yegg nañ ci quart de yi équipe nationale bu Sénégal bi nga xam ne nii daal dina bokk ci boobu compétition jàppaleen na qualifié na ci quart de finale yi ndaxte dañoo gagné seen ñaareelu jongante seen diggante la woon contre Mali ci 1-0 ginnaaw bañ amee woon ndam seen jongante bu njëkk Sénégal boobu la daal dina qualifié ci quart de finale yi Sénégal jël raw gàddu gi ci poule A bi nga xam ne nii bu Sénégal ci wàllum jigéen ñi nga nii ñi ngi ci wàccaayu éliminatoire CAN 2022. ginnaaw ba ñu nekkee en regroupement ay fan foofu la ci tubaab jalaaw ci centre Jules François Bocandé suñu gayndee jigéen ñi ñi ngi ci wàccaayu éliminatoire CAN 2022 buñ nar a amalee ca Maroc. jàppaleen ne mercredi bi ñu weesu amoon nañ jongante xaritoo ak Cap Vert jongante bi nga xam ne nii suñu gaynde yooyu lee ñoom ñoo mujjee dóor ci 1-0 dinañ amalaat beneen jongante xaritoo seen diggante ak Cap Vert lay doonaat samedi bi ñu jëm. ñu jàll ci làmb ji ak Gaston Mbengue mi nga xam ne nii dafa daal di am mbébét daal di organiser li nga xam ne nii moom mooy CLAB maanaam benn tournoi de lutte bi nga xam ne nii moom la fas yéene amal mu nar a dox ci diggante lu néew juróom ak ñett lutteurs yi nga xam ne nii dañ leen daal ràññee ci làmb ji promoteur de lutte boobu la nga xam ne nii mooy Gaston Mbengue mi ngi foofule ci États-Unis te ñu ngi xamal ne loolu la nekk di waajal ba fa ñu toll nii waxaguñu yan mbër ñoo ci nar a bokk waaye ñu ngi ci dégg ay champion yu mag a mag ñu daal di tëjee suñu revue d'actualité de ce vendredi ak basketball suba ci samedi bi ci foofu la ci Cameroun lañ nar a tàmbali li nga xam ne ni moom mooy afro basket ci wàllum jigéen ñi ñu ràññee ci douze équipes yi nga xam ne ni daal dinañ leen séddale si ñeenti groupe si édition bi la nag Sénégal bi nga xam ne ni moom moo ëppale lu mu jël ci afro basket bi dinañ ko xaarandi bu baax a baax Nigéria moom itam mi nga xam ne ni moom moo jëloon ñaari édition yu weesu bokk na ci favori yi Mozambique ak Mali itam ñu ngi leen di bàyyi xel ñu fàttali leen ne suñu gaynde yi jigéen ñoom dinañ daal di amal seen jongante bu njëkk ci compétition boobu le samedi lay doon bu Guinée mbébétu équipe nationale du Sénégal ci bobu compétition moy lu mu gën a néew di bok ci podium bi. loolu mo nekkoon sen dernier point sen revue d'actualité de ce vendredi di jay jaajëfal lool ci teewlu bi di len jox dig dajé lundi incha Le site numéro un du sport au Sénégal, sport.com est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android.